salaamaaleykum wa rahmatullah mbooloo mi nuyu naa ñëpp seen mbokk la professeur Abbas maa ngi ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ko ñaanal suñu bopp am na mbokk mu ñu doon laaj ci wàllu mballu moom daf koy def la wax mballu moom la tubaab bi di tuddee masturbation di fowee sa bopp ngir wut ca bànneex mu mel ni sax daf ñoo ne ndax am nañ li nga xam ne buñ ko ko digalee wala ñu jox ko ko dina ko bàyyi ndax ku ko bëgg a bàyyi la san moom bëgg na koo bàyyi xam na li muy def doy na waar mu bëgg koo bàyyi mës naa ci def waxtaan kon dama koy tënk rek xam nga mballu am na ñu naan baax na waaye njuumte la ndax dañu la naan dafay dindi stress soo ko defee day tax nga nelaw mooy ñu koy daganal ñi koy jéem a daganal waxuma nag ci wàllu diine waaye daganal ci wàllu ne amul gàllankoor bu mën a tegee ci wàllu wér-gu-yaram am na ñoo xam ne loolu lañuy wax waaye loolu wérul mbal lu baaxul te ci départ bi comme que mbokk mi daf ma laaj ndax mën naa ci dara ci fajal ko ko ba mu bàyyi ko xam naa man awma ci garab gu may jox gu may joxe nit gu may jox nit ne ko boo ko jëlee dootoo ko def loolu mu awma ko wax ma amul waaye man awma ko te it xamaguma ko eh, eh, li ma waxoon ci wàllu tux cigarette rek laa ciy wax waaw ma ne yéene rek yéene yéene bi moo ci njëkk moo ci war a jiitu rek yéene ne damay bàyyi tux waaye mballut nga yéene ne dama koy bàyyi rek waaw volonté bi daal moo ci jiitu waaw gis nga loo bëgg rek te nekk ci rek mun nga xëy bàyyi ko kii nga xam ne nee na mu bëgg na ko bàyyi moom yéene yéene kon am na yéene d'abord loolu rek atula parce que am na ki koy def moom jéema ko bàyyi te foo ko fekk ma nga ca góor ñi góor ñi ñoo ko dàq ci góor ñi lépp am na jigéen ñu koy def waaw li koy defloo nit ki nag lu bari mooy yenn saa yi xalaat xalaat mbiru sëy lu bari waaw bu dee célibataire la di ko xalaat xel ma nekk ci muy góor muy jigéen waaye yemu ci célibataire am na marié yi koy def li koy expliquer ci marié nag mooy li ñuy tuddee insatisfaction waaw bu dee way dencante ñi ngi nekk waaye kenn ki da koy day nëbb di ko def day fekk ne li ci ëpp rek eh, lim soxla da koo amul loolu lenn la ci waaye am ñi nga xam dañ koo tàmm ba mënuñ koo bàyyi ñi nga seen soxla waaye teewul suñu wéetee def ko kon tàmm boobu ca la waaw ah, am na ñi nga xam ne eh, ñoom dañu dañ leen dañ leen gëm la dara newu ci xëy na loolu lañ gëm ñu nekk ca waaw aw ni nga xam ne seen soxna sori na leen wala bu dee jigéen borom kër ga sori na ko mu jàpp ne daal pour bañ a dem caaxaane wala yu demee noonu moom noonu lay def am na ki nga xam ne loolu la ci jublu nee la waaye ki nga xam ne jubluwu sax loolu moom daal mënu koo ñàkk def rek waaw moom daal moom daal da ko du du du tàggoog loolu fu mu toll rek su wéetee rek xelam ma nga ci kon nag lu ñuy lu ñuy lu ñuy lu ñuy calculer la ci wàllu bopp psychologiquement pour bàyyi ko waaw nga xam ne du lu gën moom mballu ndax socialement daf la isolé ki ki bëgg mballu du bëgg sax toog ci nit ñi lu bari moom bu sañoon minute ne dana wéet xool nu muy seetaanee yenn yi parce que fa lay fa lay commencé ngay xool li lay yëngal wala ngay wax ak nit wax ci lay yëngal waaw boo ko defee yooyu daf dafay dafay daf lay jox soo ca noppee da lay jox yëg-yëg bi nga xam ne da ngay bëgg rek dem def li nga daan def jàpp ne boo boo ko defee rek yaa ngi soulagé wu oyof kon yi nga xam ne kon condition yi nga xam ne dafa koy waral yooyu rek ngay daw waaw yooyu rek ngay daw ndaxit am nay danger xam nga danger yi ci nekk moom mballu dafay waral coono coono coono gu tar waaw mën nga fa jaar dal am coono gu tar fotol di sonn waaye day waral ngay gaaw a yegg gaaw a pare ci sëy waaw wala góor gi nga xam ne day dem ba awram do dootul dëgërati du daanaka pour mu jug du yomb fekk ci mballu la ko jëlee waaw waaye mballu dafay dem ba yàq qualité man yu góor waaw gis nga mballu dafay dem ba tax nit ki kawari boppam sax day ruus waaw ndax dafay dem ba laal lu yooyu ñu tuddee follicule waaw ba nit ki du kawar kooku mballu dina ko def waaw waaye dafay yàq calcium bi nekk ci yaram looy gën di mballu calcium bi di yàqu ci sa yaram bu ko defee tawat yax yi gën si la mu tudd arthrose mu tudd ostéoporose ni mu mën a nu mu mën a tudd xeetu tawat yooyu benn dina la ci gën a si bu yàggee sax da dem nag ba am yax yu fënax damm-damm yomb la foxoj yomb la rëq yomb la fekk ci lii nga ko jëlee waaw nga am li ñuy tuddee faiblesse musculaire da ngay xaw a nasax ci say wàllu yàq waaw kooku gis nga mballu da koy def waaw moom li li gën garaaw sax bokk na ci gën a garaaw yi muy mooy dafa yàq calcium te calcium yaram da koo soxla nag am na yeneen yu ëppati yu gën gën a ti garaaw waaw parce mballu nit mën na ci jege jóge faatu mën nga mballu yem foofu foofu nga koy defee nga yem fa waaw ndax mën na la jural li ñuy tuddee asphyxie auto érotique ci tubaab waaw waaw fatt ci saasa waaw ndax bànneex boo mënul contrôler mu jural la nga fatt nga fatt fatt ba nag nga jaaree ca loru waaw waaye mën na mën na la jural am nàcc nàcc ci yuur waaw te nàcc nàcc boobu nag su la dikkalee dangay jékki-jékki rek am bopp buy métti bu tar bu la bett waaw tar ba jaaxal la te loolu mën na la yóbbu ci li ñuy tuddee coma waaw da ngay dégg liñ naan coma nit ku nelaw nelaw rek nelaw lu yàgg ñu ne mi ngi ci coma am na coma nag ñu ñu ci nekk xëy yàlla dogal ñu yeewu am na ñu yàlla nattoo ñu jaare fa kon gis nga danger yi dañoo bari ba kenn ku nekk rek ku ko doon def war nga xool ne li gën mooy nga bàyyi waaw bàyyi ko de moo gën de waaw ndax am na ñoo ciy déglu dañ lay gëmloo ne dara newu ci dañ naan boo koy def dootoo te boo tëddee di nga nelaw waaw bu doon dina tax nga nelaw dina wàññi stress gàllankoor yi muy tegee ñu ëpp doole lool que yooyu waaw kon nañ ci bàyyi xel waaw moo tax ma ne volonté la rek bëgg-bëgg bam yéene bàyyi ko su dee yor nga soxna ah nga góorgóorlu rek nekk ak moom soxna si nekk ak borom këram bu mënee nekk moo gën waaw eh, kenn ku ne mën a contrôler sa yaram rek yooyu doo ci dugg ak lépp li nga xam ne yow xam nga ne boo ca boo ca nekkee mën na la mën na la ko jural rek Euh, bu boobaa daw ko ah, yow yaa koy daw rek yaa koy daw rek lépp lu la mën a yëngal ba sa xel dem ci yooyu daw ko rek kon nag man awma garab gi nga xam ne boo ko jëlee doo ko def waaw ah, yi ma ciy wax daal mooy danger yi ci nekk ku ko mën a moytu moytu ko léegi nag képp ku ko doon def te xëy jàpp ci yàlla bàyyi ko mu fekk jëlee nga ci new kattan néew kattan googu moom lu may faj la man ndax am naa garab gu ma liggéey tuddee ko la roquette loolu moo ko yëkkati wàllu néew kattan góor gu néew kattan ci sëy gaaw a yegg awra bu dul jub gaaw a yegg awra awra bu dul jub ñàkk am yëg-yëg yemoo ca nag ndax garab gi baax na ci seere ak ballonnement ak yaram wuy métti ak coono kon nag ñi ko soxla nañ jokkook man professeur Abbas ci 77 786 65 19 77 786 65 19 képp ku doon def loolu jëlee ci néew kattan garab gi moom mën na laa faj waaw garab gi nag yamul ci ñi nga doon mballu rek moom day faj lépp luy néew kattan rek kon nag képp ku kuy dund lu mel noonu nga xam ne gàllankoor la ci sëy rek garab gi mën a mën a naral dara incha allah eh, kon nag loolu ma doon waxtaan wi tey xam naa ñu ngi jéggalu coow li ngeen dégg ci suuf ndax dañoo nekk ci kaw terrasse ak xaw a tiim mbedd mi eh, yal nañu yàlla may dégg ak topp asalaamaaleykum wa rahmatullah